mais oui. le sort de ces 41 agents combien vont être euh, repris mm -hmm. et gardés euh, je dis désolé may mun a loolu mënu ma ko wax fii parce que ñu ngi def le travail technique mais jàppal ne mais pourquoi ngeen bëgg aussi menacer. Euh, non des des des des emplois alors que vous dites que da ngeen bëgg a. créer on ne menace pas des emplois da ngeen di créer 1100 volontaires. <laughs> Euh, de de de de de de. foofu nga waaw justement kon ay nga sa bopp. parce que fa nga naan ñun dañoo wàññi. fa nga ne fa nga ne dañoo wàññee dañoo yokk. waaw d'accord parce que secteur bu mënoon a am mille cent six. te xaalis bi ma koy defee bi buñ ma man autorisation rek lay xaar te euh, le président mu ngi mu ngi mu ngi ci étude bi te moom aussi mu ngi xool dossier bi mais dama la bëgg a wax ne mille cent six yooyu mais y' a avec par exemple Euh, une vingtaine de no non déglu rek une vingtaine de personnes yoo xam ne non seulement kaay ma wax la rek profil yi su ma la ko joxoon bëgg ma dugg ci yenn yi mais su ma la ko joxoon non non monsieur ministre su euh, ma la ko joxoon non monsieur ministre monsieur ministre il faut faire preuve mhm. de transparence mhm. problème boo xam ne dafa taxaw waaw euh, mën nañ ci am diverses interprétations mhm. da nga jàkkaarloog sénégalais yi da nga leen di wax ce qui se passe ak li ngeen nar waaw mais li ñu nar wax naa la ko. nee naa waaw non da ne am na yoo xam ne mënoo ci dugg mais danga war a dugg ci yooyu. non li tax ma ne la mënu ci dugg munuma ma di exposer fii le travail technique may mun a j'étais à l'aise pour le faire. oui mais dama la bëgg a wax ne pour toute organisation. parce que d'ailleurs appel à quel emploi tes emplois appel à quel poste tes postes appel à quel métier les fiches métiers métiers yooyu yan activité activités yooyu yan tâche man loolu mooy sama domaine. donc j'étais à l'aise ci loolu. donc boo déggee boo déggee ma ne waruma cee bëgguma cee dugg. quand quand quand vous parlez parce que faire l'émission sur ça. quand vous parlez de profil. Mhm. da nga bëgg a ne les certains profils. il y avait un clientéliste pour nga noppalu bokk. il y avait un recrutement. clientéliste il y avait un suremploi. les profils ne répondaient pas au missions. non pas du tout. c'était fait sur la base d'un électorat politique. mais c'est des Sénégalais aussi. Ah, mais même si sont des Sénégalais. yow waruñu waruñu xañ un Sénégalais dañ leen di lu def ko parce que ancien régime moo ko moo ko moo ko recruté. non non je suis désolé kon ah ah bu ñu réfléchir noonu duñu jubanti. te xam nga ku ñu fi jël man mii sax. fay am beneen dimension. Mhm. programme bi nga fi wax yëpp. Mhm. même bu fekkee ne dañ leen recruter. Mhm. sur une base politique. d'affinité politique. Euh, ñooñu noonu. liggéey nañ ci programme bi. pendant non, trois ans woon tax. pendant trois ans am nañ ci expérience il peuvent servir. Mm -hmm. la politique du du du du du du, du ministère. Mhm. soxla ngeen leen feneen ñi nga xam ne toog tooguñu seen kër bu weer dee ñu fayee ko ñi nga xam ne ñooñu defuñu loolu d'accord ñi xëy di dem. xam nga xam nga xam nga. est-ce que xam nga ne promise man mii on les a reçus j'avais instruit directeur de cabinet de les recevoir. ñu koy réglé de. mais est-ce qu'il y aura une heureuse. pour non monde. xam nga nag. <laughs> non mais pour tout monde c'est important yow yow yow yow Maïmouna xam nga yow li wax rek yow sa émission moom mooy loolu da ngay affaire. waaw mais c'est xam nga xam nga liggéey xam nga xam nga sénégalais biy liggéey. Mhm. di fay njàngu doomam. Mhm. di fay loyer. Mm-hmm. di suturlawu di suturaal ay ay ay ay waajuram kooku dañ koy jël ah dañ ma wax kuy liggéey ma wax waaw di suturaal ay waajuram di fayeeku changement de régime kenn du ko dàq changement de régime politique warul menacer son droit à l'emploi non et c'est l'erreur que vous faites avec vos audits organisationnels maa ngi dégg ñu naan woy euh, cinq cent personnes prestataires arrêtées à l'ONAS cent millions euh, cent millions la ñu la ñu la ñu la ñu kii euh, coûte cent million la ñu réaliser comme économie mu mel nit léegi état dafa nekk dans une dynamique de rentabilité financière te état loolu bu cëram non loolu interprétation la boo xam ne demewul noonu xam nga problème bi la may mun a tant que nag soit ñu ne ñun on fait du social dans le service public ah mais fii parce que yow jël koo xam ne liggéeyul day toog këram bu weer dayee mu dem fayeeku banque ñu rëkk ndigam ku liggéey ñu recruter la nga bëgg a wax ak yow ma bese mu ne ma soxna si dañuy wër liggéey ma ne ko góor de ma ne ko mhm. liggéeyu lan mhm. wóolu ma ko au début mhm. ne ma non dañuy wër liggéey ma ne ko mais ban liggéey nga bëgg mu ne man su ma amee xale bu góor la de su ma amee nettoyage ma jël euh, ku jigéen kee moom day togg day day nettoyer dañoo am jom ah xam nga mu ne mu ne ma sama yaay moo ne dama war a dem liggéey sama sama ça mhm. mhm. mhm. m'a ça m'a ému. ça m'a inacceptable ñu bàyyi sénégalais bu mel noonu. il a 23 ans ce jeune la fii xaw ma âge ñu bàyyi sénégalais bu mel noonu. jël liggéey jox ko kuy tëdd këram. di fayeeku dañoo dañoo war a rëkk ndigam mais dañoo war a rëkk ndigam jubbanti ko mais tamit dañ ko war a jox une chance ñu ko xañ emploi mais boo ko joxee emploi est emploi lañ ko jox xam nga nee naa tàng dama la jox benn benn logique. joxuñu ko emploi lan jox non ko emploi dañ ko recruter. dañ ko daggal salaire maanaam c'est un employé fictif boog. Hmm, parmi les 41 dafa am des emplois fictifs. non mais noonu nga ko mën a tuddee parce qu'ils ne sont que bu amee koo xam ne tey leer na ne kii moom du xëy si mu nga tëdd fële di fayee ko xaalisam c'est-à-dire xam nga problème bi lan la euh, soxna may a ñooñu bëgg liggéey kuñ ku ci nekk. bu ñu demoon tey ba promise waru laa jël expérience ba nga am je vous jure duñ la bàyyi dinañ la dugal feneen ci ministère. mais loolu laay wax. waaw loolu laa la wax loolu dañ ko def mais promise nga ma wax dama la ne promise est ce que ñoom ñëpp dañ leen di jëlaat man j'ai entendu j'ai compris par jëlaat dans promise man la déedéet dama commencé man ne la c'est quand on a 16 16 la ñu waroon am promis programme bi 16 personnes la ñu prévoir ñu dem ba 42 42 boobu ku ñëw wut ci tabac politique dugal ñooñu nag ña nga xam ne ñu nga doon ñëw am compétence liggéey jot na am lu ñu xam ci microfinance islamique mais tu peux les redéployer ailleurs dans le ministère. alors mais ña nga xam ne nag dañoo toog fële moom bu weer dee ñu dem fayal kenn gisu leen nga xamu leen kenn du leen jël. alors.